teel parce que loolu lañ mës di gis Sénégal di doxee noonu parti bu nekk au pouvoir wala coalition euh, ñu téye sa liste ci élection législative mun na nekk. Mhm. waaye day nekk lu lu lu bees lu ñuy soog a bind ci histoire Sénégal. en espérant qu'ils vont pas. justement euh, euh tout simplement les <laughs> sales en espérant si on évoque la jurisprudence incompétence am mënu cee nekk mënul wax incompétence parce que compétence euh, conseil constitutionnel moo écarté euh, Malick Gakou ci élection présidentielle compétence conseil constitutionnel moom moo invalidé parce que on se des candidats la candidature Euh, parrainage écarté leen. Mhm. ñoom ñëpp ku ci nekk dem nga conseil constitutionnel ne ni e ma écarté du yoon c' est le par exemple pour euh, les candidats Bougane Gueye qui a été candidat à la candidature pour l'élection présidentielle 2019 ba finalement bu ñu defee parrainage bi yëpp Euh, ñi génnoon c'était cinq euh, les cinq euh, ñi nga xam ni ñoom ñoo dem ci élection présidentielle bi dont le président sortant Idriss Seck Ousmane Sonko qui est arrivé troisième et qui finalement aujourd'hui on peut le dire bu ñu xoolee présidentielle qui est deuxième puisque le deuxième moom fête na léegi ci quand au pouvoir mais le conseil constitutionnel je ne pense pas que mu taxaw na ni je me déclare incompétent ci dossier boo xam ne ni ñoom mës nañu traité dossier bu ni tout cas n'est-ce pas Mame Mbaye sept heures moo jot cinquante minutes am nga dix minutes pour def sa revue des titres ah. waaw si si ko boo ci génnee boo nuyoo lébu yi ba pare. mbokk lébu yi waaw mu nuyu leen ñu nekk biir géej nuyu naa leen bu baax El Hadj maa ngi laa nuyu. fay naa la maam. na koy tey. sant yàlla bu baax a baax alhamdulilah waajal gan gi. waaw maa ngi bu baax. bu baax comme suñu délégation bi war a dem seeti xalif bi. xalif général kullu murid. bu soobee yàlla matinal bi ñëppay dem de. waaw matinal bi ñëppay dem nag. nanu ko waajal ndax gan gu mat gan la donc gan dañu koy ganale. lay ndeysaan moom sax du gan si Dakar Ndiaye. Mhm. waaye nag ñun ko def suñu ganu bopp rek la bëgg koo teral. Mhm. teeru ko. Mhm. Euh, looloo sabab nag ñun ñëpp nu ko waajal bu kenn des ayca yéen a kaay groupe des médias tribune yéen a dafa ñëw ci li nga xam ne rek moo di gis-gis nu Guy Marius Sagna ak Bougane Gueye Dany dafa mel ni ñoom ñaar ñoo bokk gis-gis jamono ji seen gis-gis nag du lenn lu taxawal benn plateforme bu nga xam ne nii dañuy xeex jàkkaarloo nguur gi doxalinam gi nga xam ne ñëpp dañoo jàpp ne awul ci yoon les dérives euh, euh, euh, bu régime bi loolu nag ñoom jàpp jàppale ne Bougane Gueye Dany mu ngi tey tàmbalee dox fu mu nekk nii waxatul euh, tiiñal euh, euh, jokko tiiñal makki waxatul tibb tànk nu mu ko doon defee mais set fois ci nag dëkkab dóore la wax fayoo koy tas jamono ji nag ci loolu lay dox mbajum kanam borom koy fajal boppam te nee na lii mbajum kanam askan wi la kon nag askan wi la ñu ko fajal seen bopp nu ñu koy fajee moo di joxoon joxante loxo ndax nag bu ñu jàpp ne victime mu tey jii rek mbiri sa lay yam ndax ay du yem si boppi borom ñi nga xam ne mbiri laalu leen bu ñu yaakaaree ne mbiri ëllëg mënu leen laal ñu ngi nax seen bopp kon nag naka ñëpp def seen xeexu xeex nañu ko def xeexu groupe moom euh, Bougane Gueye Dany noonu la wootee euh, ndax nee na nag wax fa dëgg neex yàlla doxalinu régime bi fi nekk ni jaay ak doole dëgg la te xel xalaatu ñu koy bàyyi mu jàll moo tax moom fi mu nekk nii sol na la dem seeti ñi ñu woowee les forces vives bokk na ci société civile bi dina dem seeti leen bokk na ci euh, ñu ngi gis ci journal bi Ligue sénégalaise des droits de de de l'homme mm-hmm. dem na parce que ne leen waxtaan ak ñoom mm-hmm. lépp nag ci xel parce que du jaayam doole du du du defante mais ci am xel euh, ñu xool nan la ñu mën a def ba imposer nguur gi wàllum démocratie fii ci réewum Sénégal ci loolu lay dox moom Bougane Gueye yéenekaay bi bu euh, tribune ñëwaat ci euh, dog-dogi courant yi coupé lekk tàmbaleeti na ndax nag ku si nekk gox bu nekk jël na doosam mm-hmm. coupure courant bi tàngaay bi ku si nekk xam na mu koy dundee yéenekaay bi nee na retour des délestages démb ñu ngi woon sa tribunal mbirum trafic passeport diplomatique yi finalement euh, euh, dogal ba rot na ma des ñu wax ne ñaari député yi El Hadji Mamadou Biaye ak euh, Boubacar Boubacar Biaye ak El Hadji Mamadou Sall nekkoon ay député ñu laal li seen malaanum kiiraay teg nañu leen ay daan mm-hmm. donc ñaari at yu nga xam ne nii kenn ki juróomi weer lay tëdd kenn ki juróom benni weer yi man bu fekkee atte bi fii la yem yaakaar naa ne ña ña defoon extrait de naissance yi kon seen mbir yi jeex na nii mm-hmm. ñi ñi joxoon seen certificat de mariage yi kon jeex na nii divorce yi ak divorce yi donc loolu jeex na nii kon fii la yem amul benn problème amul benn problème euh, li ci kanam raw lii dinañ ko waxtaanee waat yéenekaay bi ba tey ñëw ci jàmmi gox yi Fadel Barro déposé na moom it ab recours am def na ni waa Yewwi Askan Wi def na ni waa coalition gëm sa bopp Cheikh Dieng nag mayu dara Karim sa Wade moom Cheikh Dieng euh, euh, mayu dara Karim Meïssa Wade ndax nee na lu njig njàkk Karim sa wadd moo di njàkk ndax bu bëggee diriger parti bi à distance lu ci mën a gis rek ñaay jafe-jafe boo ñu xam ne moom la ànd sàmm jikko yi nag nee na nañu faw ñu wan Gana Gueye ne na mu doxalee ñu ñëpp ñoo ngi ci ginnaawam moom la ñu àndal fi mu teg tànkam bu mu ko teggi looloo sabab ñoom ñu ngi woote ñu boycotté mbooleem produit bu bawoo France ñoom waa ànd sàmm euh, jikko yi ñu doxantu ba sa benn dëkk ñaari gaar euh, waaye nag dañuy njëkkee ci li nga xam ne moom mooy benn crise bu am ci biir Yewwi Askan Wi coow li bari na ci leader yi doon daje waaye nag jàpp leen ne am na si ay frustré yu nga xam ne ni ndaje ma bokkuñu si dañoo dem ndax nag euh, Bamba Dieye Girassi ak ñeneen ñi nga xam ne ay frustré la ñu woon ñoom ñëpp dañoo gedd li nga xam ne moom mooy ndaje mi teewuñu ko Khalifa Sall moo fa nekkoon Sonko Aïda Mbodj Habib Sy euh, Déthié Fall Cheikh Tidiane mun euh, a Bousso ñoom képp ñoo mujjee desoon sa ndaje ma doon waxtaan si ëllëgu Yewwi Askan Wi waaye nag dañuy dugg sa mairie bu Thiès benn dëkk ñaari gaar xam ngeen ne kon Babacar Diop maire ba def na fa ñetti weer mm. ba ka nga xam ne moo fa nekkoon Talla Sylla la mu fa liggéey la mu fa bàyyi euh, ñu ñu xoolaat ko ba mu de euh, sàkkoon nag ab ab audit rapport bi jox nañu ko nee nañu ko nag neexul ba neex waaye Talla Sylla ba nga xam ne buroom dafa dindi woon table yi chaise yi yëpp génn ci biti lal lal lal ab basangam ndekete ci suufi basang yi neexul ba neex mais mbóoti kese la suufi basang yi ay mbóoti kese la mbóoti kese alors Babacar Diop nee na nag moom dafay soppaleku xam nga ñu daan jaay suy <laughs> tel ma tax teeñ paa yooyu daan yor pompe daan dox ci mbedd yi naan suy bale suy bale suy bale moom ci boppam Babacar Diop nee na moom mooy suy bale fu mu nekk nii ca mairie ba la dugg nee na moo leen mbóot bu nga xam ne taala si la hmm. na ko fa ko pompe boom taala si la bie xaar rek basa ngam nga mu laloon noonu doon jaay ne ne moom da koy def affaire de taalibe et puis da koy def ay mbóot ci newoon ndekete bi ñu yëkkee kii ay mbóoti kese la lan mooy mbóot yi benn <laughs> nee nañu carburant bi ci mbóot yi waaw benn ci mbóoti waaw benn ci mbóoti carburant bi soixante dix millions carburant si dix mois xanaa waa Thiès yëpp ñoo doon ñoo doon dawal ci carburant ba. soixante dix millions soixante dix millions ci dix mois si ñetti oto ñetti oto kese ñoo utiliser soixante dix millions carburant. ah oto yi Dakar Dakar Montréal lañ doon daw Dakar Montréal Montréal. <laughs> Montréal Canada. loolu ci mbóoti la. ma mm. ñëwaat ci mbóoti ba tey. waaw renouvellement fictif de matériel administratif. ñu xayma ko ci dix-neuf millions. ñaar si yenn matériels yi nga xam ne dañ ñëwoon dañ ko doon euh, maanaam defaraat jëndaat table yi jëndaat ay chaise nee bi ñu demee gis ñu benn chaise bu bees bu ñu fa teg benn table bu bees banque bu bees big bu bees xanaa bas basang bu bees bi mu laloon. basang bi ah man naam est-ce que basang bi bees na. man naam basang bi fi mu ko jëndee moo sori tamit. waa xam naa basang bi fi ñu ko jëlee tamit mën na nekk basang boo xam ne da ngay jël du bàyyi la jënd peut-être. wala Australie en tout cas boobu itam ci mbóoti 19 millions ba tey Babacar Diop <laughs> moom moom moom mooy wax ba tey ba ba tey ci li nga xam ne moom mooy mbóoti ñu ñëwaat ñu ne euh, la mairie éprouve des difficultés à à rentrer dans ses fonds de recette sur trois mille euh, trois milliards 33 millions 440 499 euh, mille 566 si 2021 bi jàpp leen ne lu dul 990 mille millions 739 mille 643 la ñu jot rek recouvrer koppar boobu ñu doon xaar noonu yëpp ay ay milliards à de ba million ba tey ci mbóoti mbóoti ba tey dinañ ci ñëwaat de euh, le ministre de l' intérieur Antoine Félix moom it démb yëkkati na ay kàddu jëmale ko ci Ousmane Sonko ndax euh, doon jàppale ñi nga xam ne mooy société civile bi ak kàddu yi ñuy teg seen euh, kaw duma ma jógee ci mbóoti ba tey dañuy dem ci mbóoti Talla Sylla fu nu ko fu nu ko waxaatee waat mbóoti mbóoti ba tey mbóoti ayca ba tey Babacar Diop déniche les de la mairie voilà moom ci bi entre deux mille vingt deux mille vingt et un nee na soixante dix huit employés euh, la ñu amoon ci euh, euh, ci mairie ba deux mille vingt deux mille vingt et un cent cent seize employés avec une masse salariale qui est passée de cent quatre vingt sept millions à deux cent trente millions donc <laughs> salaire hmm. salaire dafa jógee si cent quatre vingt sept millions léegi dem ci deux cent trente millions donc yokk nañu employés yi hmm. ba tey ci mbóot yi ah mbóot yi gën a mag nag mbóotu Sonatel mbóotu euh, Sonatel Orange moom dañ leen alloué benn euh, cent mètres carrés non mille mètres carrés hmm. nee nañu nag mille mètres yi six six mille francs lañ lañ doon fay carré par année hmm. par année par année si mille mètres carrés yi hmm? six mille francs lañ doon fay ak mu jot six mille francs six mille francs donc mètre carré ñaata la cent francs non ma cent franc lan doon fay ci mètre bu nekk. mille mètres carrés. waaw mille mètres carrés. mètre bu nekk six mille. ah et payer six mille francs par mois six mille mètre carré par donc nag waaw nga dëgg mètre carré bu nekk moom mooy six mille donc ah, mille mètres yi dina yegg ay ñaata six cent mille soixante mille genre yooyu daal euh, si at mi soit cinq cent francs voilà cinq cent francs euh, le mètre carré cinq cent francs le mètre carré lu doy ni Sonatel nee nañu ba tey ci rapport bi du samay kàddu loolu 500 francs CBAO it jot na ca wàllam ndax moom it 800 mètres carrés la doon la ñu ko joxoon. CBAO. CBAO. CBAO. Mm-hmm. moom 800 mètres carrés la ñu ko joxoon ca Thiès mi ngi fay mille francs ci mètre carré par an comme waaye ñoom 6000 6000 6000 yi moom. <laughs> lu muy lu muy dox. jigéen yomb a la rek. <laughs> xam naa maire bi maire bi ko doon joxe njëgg daa yomb ci boppam rek. boo ñëwee la six mille six mille. waaw xam naa nag <laughs> yow naa nag xam naa nag xam naa ba tey ci mbooti taala si la yi. alerte yéen a kaay daf cee ñëw 2019 2020 le personnel de la ville dafa jóge ci 58 employés dem ci 78 euh, employés permanents avec une masse salariale xam ne mi ngi toll mi ngi jóge ci 117 millions dem ci 187 millions diggante 2020 ak 2021. ville bi mënees nañu jàpp ne mi ngi toll ci employé yi 78 la jógee dem 116 ah masse salariale bi jóge ci cent 187 jàll ci 230 millions carburant bi nga xam ne mënees nañu wax ne si diiru euh, euh, si diiru fukki weer ñetti oto képp 70 millions la la seen carburant di dikkee ñëw na ci orange ci CBAO e ak li nga xam ne rek mënees nañu jàpp ne moom la ñu teg seen ndodd mbóoti nag mi ngi noonu. mbóoti xam ñu ngi xaar nag euh, Talla Sylla mu xool ndax moom dana tontu ci mbóot yëm déet. ay mbóot mën na gën a singal nag. ay mbóot nga waneegul de waneegoo kaña de. Hmm? kaña de. am na euh, euh, kon yeneen maire yi mën nañ ci fekk ay kaña. audit bi remonté wul Talla Sylla. romb Talla Sylla wax nga dëgg. bu rombee Talla Sylla ay kaña lay laal. waaw mais ay kaña rek am na ay siiru kon. te bu mu bu rombee Talla kan moo fa nekkoon. mètre carré yooyu ngay wax noonu am na am na am na ñu yéen a kaay bindagul seeni i mètre de ah ñoo xam ne romb na taala si la. homme d'affaires nekk ci poxu kañ yi. Hmm? Ah, waaw. kon bu mu nekk ci ay ay ay suy bale. maam lire le rapport bi non Babacar moom xoolal. chapeau de. nii la moom xaw bu ñu ko falee ba léegi déggoo ko si benn coow. moom mi ngi ko liggéey moom ah, waaw nga fexe ba bu ñu ko dégg si benn coow yi. moom bu ñu ko falee ba léegi coowal politique. doxatu si lu bari de waa Thiès dañu ko yónni yàkkamti ko. ministre ñi bokk yow yi lañu yónni yàkkamti leen. kon nag nañu liggéey lañ leen di xëpp kaani rek daa bu ma un bon exemple. keneen ku def ku deful comme ni mu defee duñ la may jàmm. parce que confiance askan wi la ci ñoom. Ah. dañ leen a sas. aw sas la présenté benn dynamique. les échos ñëw na ci sax ba xam les échos daf cee ñëw nee na Babacar Diop la gestion catastrophique de Talla Sylla ñëw nañ ci ñu ñëw ci audition bi nga xam ne ak confrontation bu am ni dem ba jëm ci mbirum euh, Adji Sarr Ousmane Sonko Sidi Mohamed mbay dafa dëggal kàddu ya nga xam ne moom la Adji saar wax sii Sidi Mohamed Mbaye nee na moom moo nekkoon ma ne sañu wax ne chauffeur ba euh, euh, ba noppi it euh, dafa démonter les accusations yu nga xam ne nii jot nañu ko teg ci ndoddam nee na masul teg tànkam ci salon Sweet Beauté bu Ndeye Khady njaay moom Sidi Ahmed moom mooy wax ci yéenekaay bi nee na masul xam ma xamul kan mooy maître Dior Diagne masu koo masu koo xam si aadama Awa ay kàddoom la ce qu'on euh, ce qu'on a euh, ce euh, c'est quand on n'a pas u l'aide des organisations bi ñu demee ba xam ne kon kuréel yi nga xam ne ñoo doole jigéen ñi jàppale ñu leen ñoom si la ñu gis ne dañuy dem ci Mamour Diallo ngir mu jàppale leen ñu yegg fa ñu jëm donc coowal Mamour Diallo gi xëj naa xëj na loolu moo ko ci andi ba tey moom mooy indi ay leeral euh, ci euh, yéenekaay bi Dakar capitale de la xam nga ne diwaanu ndakaaru musée euh, civilisation boo fa demee gaañaa nga exposé ma Mbaye xam naa ko demoon fekk ko fa. ñu koy nuyu bu baax waaw. Massamba Mbaye suñu directeur bu yaru. bu yaru bu daan dugg fii de comme écolier comme ku nekk gàddu bi. mooy le le commissaire de du pavillon Sénégal. pavillon Sénégal pavillon Sénégal su ñu waxee pavillon Sénégal en fait il trois. pavillon euh, ñaar ñuy invité mais Sénégal moom mooy commissaire exposition bi. kon maanaam mm-hmm. lépp ci moom la jaar ku fay exposé moom mooy nangu ni Mansour œuvre yi mën nañ ko exposé. ak eh euh, bo boo xoolee sax ci yenn euh, ay images. démb yi rek moo nekkoon ak le président Macky Sall bu ñuy def lii di ouverture bi en tout cas chapeau ma Massamba Mbaye. c'est un critique c'est un critique d'art Euh, il est très culturel. Mhm. macha allah ah, dénk nañu liggéey bi ku mën liggéey. très culturel et très cultivé aussi. dénk nañu liggéey bi ku liggéey boobu noonu. à notre ancien directeur général des médias Massamba. yaru na na. te mu ñëw mu ne ma ma leen expliqué Mame Mbaye xanaa xamoon ne lii ñi seer rek ñoo koy bàyyi. ci kii ba pare mën a wax lu baax mën a wax lu baax mën a wax lu baax. vraiment heurté waa sedd comme comme yow rek. ndeysaan dafa dafa sedd dafa sedd. waaw comme kan dafa sedd comme kan. comme man. nee na dafa sedd comme man ba pare ne ma seddoo sax. bon Mame Mbaye écoute. jot naa yéen ñaañu kenn ma jeexalee 8h04 moo jot. 8h04 waaw. ñu dem ci Oja kon. dama bëggoon ñu jeexalee gi Oja dafa ñëw ci basan bi. Euh, Mbóoti Mbóoti Talla Sylla Talla Sylla finalement yéegaat na ci table gi. Ah euh, waaw parce que Mbóoti bari na ci basan nga mu laloo. Oh, oh, oh. léegi Babacar Diop moom nekk na <laughs> dañuy faral gune gu loo xam seetee mën a bokk ak mag ndab waaye de moom ak Talla la bokk ñu ndab ndax yëkkati na li nga xam ne moom mooy basan ba Mbóoti tëb nañu. alors ndax Talla Sylla dana génne single tontu ko ndax def ci ay torom na te mu génne single def taalif tontu Babacar Diop lu mu ci man ci doon ñoo ngi xëppi suñuy gën di xool fii la Odia génne Yacine kon 8h04 damaa xaabaabal ma yow kay euh, Hadj Moussa mën ngaa kii titre directement sax ñu lay mën ngaa doxal. Casamance ay nu yu nekkoon ci àll ba doon dagg ci am goo xam ne jaaduwul dañoo dajeek ay soldats ñu soqi sox ci seen kaw ma nga am ci arrondissement bu Sindian euh, am na ci euh, ay ndaw yoo xam ni am nañ ci gaañu gaañu. des na wax itam ci li nga xam ni mu tënku ci wàllu maanaam suuf ak itam wala jalgati yoo xam ne am na ci gestion bu mairie bu cees Babacar Diop ba mu yunduloo mairie ba bari na lool ay jafe-jafe yoo xam ne am na fa ci wàllu gestion daanaka daal ñu jiite woon mairie ba dañu ko jàppe woon rek marché Ndiobène Taye ndax des coté côté noonu ab commune dañ ci dellu soit faram fàcce ko ci xibaar yi dinañ wax itam ci li nga xam ni mooy euh, élection yi Euh, Cheikh Dieng joxe na xalaatam euh, moom mi yor wàllu élection ci biir parti démocratique sénégalais daanaka daa xaw a song Karim Wade jamono jooju itam leaderu coalition Gëm sa bopp entamé benn série de rencontres bu mu jagleel ñi nga xam ni force vive lañ leen di wax Bougane Gueye Dany démb ma nga woon euh, ci ndajeem ak Alassane Seck muy secrétaire général bu Ligue sénégalaise des droits de l'homme sport nañ ci ànd ak Baye Mantou Mboub yéen a kaay lañ koy